ñu ngi nuyu ku ci nekk sa tur sa sant di ñaan balaa ñuy commencer waxtaan bi pour ñu def euh, une minute de silence en mémoire euh, suñu mbokk yi fi génn ci at bi. remercier ñëpp si toogaay bi ak si teewaay bi si réunion bi ñu tey xam naa ne ko yéen ñëpp dangeen ngeen sonn ku ci nekk dafa liggéey woon lu mu yëpp ma sama bopp jigéen ñi parce que xam naa ne que jigéen laa comme ñoom xam naa ne da am liggéey ci biti am liggéey ci biir kër gi te buñ ñëpp jëm ñibbee lu ñu tëdd si saa si am nañ liggéey bu leen di xaar di remercier

dafa war a def plusieurs endroits à la fois mënu ko def ci benn week-end rek loolu waral nag euh, misi euh, réunion yu mel nii ñu organiser ko tamit ci biir semaine bi ñu leen di remercier euh, ci seen teewaay di excuser aussi la fekk que na am na ñoo xamante ne yàq na seen liggéey benn port bu loolu weesoo ñuy remercier doyen Abba waa bureau bi yëpp président newu fi Moustapha ngi fi chargé des affaires avec euh, des relations avec les institutions soxna Daba bi représenter les dames ak euh, Aline Badara ñu nekk fi ci table bi euh, di wax rek ne xam naa ne que suivre ngeen sax suñu débat yi ñu jot a am São Paulo ak Rio Grande do Sul mais comme tànk yi ñu yëkkati woon foofu moo ñu yëkkati fii il faut ñu defaat le même point li doon. samay kàddu mooy def le point par rapport ak suñu première réunion bi parce que boo leen fàttalikoo bi ma ñëwee première fois bi c'était pour xamanteex yéen pour présenter wu ak pour déglu leen xam yan besoin ngeen am digganteex ambassade bi lan ngeen bëgg ñu assister leen mu am comme ni ko Moustapha waxee sànq am na yoo xamante ne jot na sotti boobu au moins année bi am na loo xamante jot nañ ci jéego yi ñu ci jot a def muy affaire passeport yi par exemple ñaari mission ñëw nañ fi euh, waxoon nañ tamit waxu participer ci élection yax carte d'identité te defe naa mission ministère de l'intérieur ñëw na fi pour enregistrer ñi nga xamante ne si affaire révision liste électorale yi pour que élection incha allah bu février 2014 waa Argentine ci bokk. waaye itam xam naa ne si liñ ma laajoon yépp lépp matul. may commencer ci wàllu jigéen ñi par exemple parce que waxtaan naa ak ñoom ci réunion bi nii jotuñu woon wax exactement mais jot nañ gisante en privé ñu posé woon problème mu financement <coughs> euh, lii woor mooy bi ma fi jógee ci réunion def naa sama compte rendu envoyé pour wax nekk dañu soxla FAISE parce que FAISE am na ñaari programme pour jigéen ñi ak pour góor ñi programme pour ñi dellu Sénégal ak programme boo xamante ne ñi de ñu ngi nekk bitim réew ba léegi donc defoon naa le point après dinaa bàyyi directeur général mu dellu si si affaire financement bi beneen bi tamit mu doon affaire nu ñuy assister sénégalais yi nekk Argentine si ñu bugg affaire logement ma jotoon waxanteex euh, directeur généralu banque de l'habitat BHS di seet nu ñu mën a def du woon Argentine sax mais Brésil mais ba tey mu nekk benn euh, jéego bu am am importance Amérique latine. pour ibbi benn bureau banque bi comme ni ñu ko defee New York nga xamante ne Sénégal yi nekk foofu mun nañ dugal seen xaalis digal directement ci banque bi bu ñu demee ba Sénégal lañ ciy jot ku bëgg tabax nga jot sa xaalis directement banque la bi l'habitat bi ma ko waxee dafa ne ma intéressé na ko dina ñëw xool naka la ñu mën a ibbee benn structure bu mel noonu malheureusement boobu léegi ñëwul maa ngi ko doon waxaat tax DG maa ngi koy ñaanaatam bu demee euh, Dakar. mu gisaa tax moom ñu xool naka lañu ñu mën a def parce que xam nañ ne que transfert d' argent bi dafa metti dafa diis bu ñu amoon euh, banque bu nekk fii euh, dina gën a yombalal affaire transfert bi yónnee xaalis Sénégal wala ñu bëgg a économiser wala bëgg tabax mun ko dugal ci banque boo xamante ne Sénégal moo ko moom. Euh, lii waral tamit jotaay bi mooy. permettre leen ñu def benn bu ñu joxee tout à l'heure euh, euh, bi DG ñu am débat ku ci nekk loo xalaat nekk de posé woon nañ ko te sottiwul ñu ñu dellu si si euh, seet lu ñu ko mun a defee ñu wax xam naa bu boobaa dinaa rappelé tam man tamit sama liggéey fan la mun a yem parce que instant dañu foog nekk ambassadeur bi lu ne mun na ko régler mais ambassadeur dafa am fu mu mun a yem lu mel ni comme si wàllu décès yi par exemple xëy na du lu ñuy wax ci rajo yi wala lu may yónnee ci biir réseaux sociaux yi mais dama bëgg ngeen xam ne que saa yu nit wàññeekoo damay def message Sénégal informé defar certificat de décès bi yónnee defar laissez-passer bi bu dee koo xamante ne assassinat la dañuy bind ministère argentin des relations extérieures et du culte ñu seet ñu ñu ci jàppale wax dëgg yàlla sax man bu fi nekkee léegi benn cas laa fi fekkee muy bosu maam Adama. mais dañu wax ne que dafa am enquête bu ci moo tax corps bi demagul ba léegi bind naa message tam rappelé euh, rappelé nu mu tëddee euh, ministère nu ñu mën a jàppale tey si suba amoon nañ ko réunion ak directeur général des affaires consulaires lim ñu wax mooy lim ñu recommandé ne nañu bàyyi enquête bi dem ba mët parce que tant que enquête bi mëtul du ñu mën a joxe autorisation pour corps bi dem donc muy loolu. Euh, c'est euh, leneen li mooy affaire présence diplomatique bi ma fi ñëwee waxoon nañ ma ne waxoon naa ne que officiellement kenn accrédité wu ma fii bien que euh, Argentine ci carte diplomatique bi la bokk mais terewul woon mu ñëwoon gisanteex yéen échanger yéen li Moustapha wax sànq mu nekk am importance. mooy présence diplomatique bi fii même bu fekkee ne que sax Argentine dafay dépendre Brasilia sori na sori boo xamante ne il faut ñu am benn cellule bu ndaw même bu dee bureau consulaire sax bu dee benn nit sax buy représenté ministère affaires étrangères daal di dépendre ambassade bi yaakaar naa ne man sama bopp daf may yombalal liggéey bi parce que lu wóor ba wóor mooy mënuma nekk euh, di réagir en temps réel dara xew rek mu mun a réagir si saa si alors que bu ñu amee fii bureau consulaire kenn di dépendre ambassade bi nga xamante ne mooy mooy nag sama intermédiaire ak yéen def ñuy faciliter liggéey bi mu nekk demande boo xamante ne dinañ dinañ ko dugalaat DGSE bu demee dina ci dina ci delluwaat mais loo xamante ne ñu ngi koy xalaat aussi bien fii que São Paulo parce que dañ koy def en fonction de euh, euh, nu mu tëddee nombre ressortissants yi fi nekk donc rek xam nañ ne que am fi bureau consulaire lu am importance la donc demande la rek. man mënuma lu dul def demande mais autorités yi ñooy ñooy décider donc demande bi demoon na depuis bi mu fi ñëwee dinañ ko dugalaat te bu directeur général delloo dina dina rappelé ne que demande bi mu ngi fi ba léegi c'est à l'état moo ma bëggoon wax rek ne bi ñu demee tey su suba tamit ci euh, directeur général de des affaires consulaires ministère des relations extérieures waxante nax ñoom si euh, yenn point yu bëri mooy condition sénégalais yi affaire régularisation papier sénégalais yi. ak naka la ñuy assister ci cas de yi wax naa lu ñuy recommander mooy ñu bàyyi euh, enquête bi sotti ñu doog mun a def li ñuy def euh, ñu ngi ko posé problème mu casier judiciaire yi ñuy demandé chaque fois bu ñu waxee ne dañuy régulariser benn papier léegi li ñu suggéré mooy parce que li situation actuelle bi mooy da ñu def demande casier judiciaire tribunal. mu dem affaire étrangère ñu signé ko ci ginnaaw authentifié chancellerie mu jóge fa ngeen yóbbu ko ambassade Argentine te léegi am ambassade Argentine amul Dakar te ñu ko doon def Brasilia nangootuñ ko waxtaan naa ñoom ñu ne dañ dañ leen ko tere léegi seeni sénégalais yi ñu ngi dépendre Abuja ne ñu Abuja la ñu war a yónnee kayit pour ñu authentifier ko moom ci boppam nee na loolu mënu ci def dara pour dindi ko pour mu dellusiwaat ambassade bi. ñun ñu koy liggéey ñun diggante ambassade Sénégal ak ambassade Argentine bi nekk Brasilia mu ne mënu ko li lim ñu suggéré mooy dafa am benn accord boo xamante ne bu ñu am ak yeneen dëkk bu tudd accord de la Haye convention de la a mu ne nañu seen ñun Sénégal nan nag nañu signer convention bi parce que convention bi day permettre bu casier judiciaire génnee au lieu muy def circuit bi def seen ambassade di dellusiwaat ñun bu ñu ko signer rek def accord conven euh, cachet convention bi rek jeex na mën nañ leen ko yónnee directement loolu nag amuñu ko woon dinañu travailler ak suñu directeur euh, des affaires juridiques xool nag la ñu mën a régler lool parce que bu boobaa tam bi ngeen doon xaar pour casier judiciaire yi dootu lañ ko xaar day jógee tribunal ngeen yóbbu ko affaire étrangère ñu def ci cachet bi rek ñu mun seen famille yónnee leen ko directement ngeen mun ko déposer hmm? euh, beneen bi mooy. beneen bi mooy euh, ñoom ñu ngi continuer def lu ñu mën ci affaire régularisation yi euh, affaire euh, papier yi leen doon di leen di laaj ne amul du par période parce que dama foogoon nekk dafa am période boo xamante ne dañuy def régularisation mu ne à tout moment nit yi mën nañ dugal demande à tout moment nit yi mën nañ dugal demande mais li ñu Moustapha wax bi ñuy wax bi ñuy wax ci loolu mooy casier judiciaire yi mooy principal problème bi parce que fii eh, accepté nañ di bu yàgg ku sa passeport expiré sax en attendant mu ñëw bu la ambassade bi defaree attestado ñu accepté ko donc euh, comme attestado am na loo xamante ne c'est déjà réglé def naa casier judiciaire bi rek mooy nekk problème boo xamante ne dinañ ko discuter incha allah euh, leneen yi tamit pour yenn documents yi comme par exemple décès Cheikhou Ba boo leen gisee mu def un mois. dañ ne woon dañ koy yóbbu Abuja si la ñu doog a changé réglementation parce que réglementation bi ñu koy yëgal février la Cheikh ba génn àdduna mars euh, mu doon li taxoon mu gën a yéex parce que officiel ma fii sama signature naw accepté wuñ ko woon donc il a fallu ñu jël sama signature yóbbu ko ministère euh, brésilien des affaires étrangères mu notari notarié ko ba pare def leen ko ñu doog ko accepté ñëw naa fi mois de mais rapidement si benn réunion G20 mais dama pare réunion dugg foofu dem seet directeur euh, Afrique euh, subsaharienne et Moyen-Orient ne ko waaw accrédité wuñ ma fii officiel ma fi mais dama ñëw waxtaan ak yow seet naka la ñuy faciliter problème Sénégal yi nekk fii surtout bu si wàllu ay légalisation wax nangam-nangam légalisation nag sottiwul boobu léegi li ñu may wax mooy Abuja lañ koy defee benn ak benn rek la accepté. ma ne ko affaire décès ak corps bu ñu yóbbu lu urgent la mënoon la ñu yónnee ay document ba Abuja loolu la ñu nangu moo tax boo leen seetee ñi fi génn àdduna yépp seen këyit demul Abuja diggante sama signature ak delloo ko euh, euh, euh, ministère bi fii mu sotti benn boobu daal la ñu may si affaire légalisa affaire këyit yu ñu war a légaliser muy affaire dépouille yi mais li si des moom dañ ne Nigéria la dépendre donc dañu bàyyi waa Nigéria def seen liggéey. donc muy wax neen rek ñun dafa am fu ñu mën a yem parce que dafa am lu ñu ko tëralee tamit lu ñuy demandé la mu mel ni tamit affaire visa yi ñu mu nekk lu ma posé tey euh, ñu ñu wax ma benn information bu ma amul woon ku am euh, carte passeport ordinaire si sa passeport ordinaire mu sa am benn visa Schengen wala am mu sa am visa États-Unis boo demee di demander visa Argentine dañ la koy jox automatiquement ñaar yooyu Schengen wala visa États-Unis ku sa passeport mu sa am benn si ñaar pour nga dugg Argentine du nekk problème loolu ordinaire la mu des beneen bi muy ñi am passeport euh, officiel comme ñu mel ni ñun bu ñuy ñëw il faut ñu demander visa depuis février tamit ñu bañ consulat bi nekk euh, euh, san Paulo ak ambassade bi nekk Brasilia ñoom bañ ñu jox leen demande pour passeport diplomatique xam naa sax am ngeen ñoo leen ci jot a dégg marabu yu waroon ñëw ñu bloqué leen nangam nangam lépp ñu foog a nekk ambassade bi la mais Argentine la dëkk bu nekk sa politique visa yow yaa koy tëral ni mu la neexee da ngay ñaan visa ñu may la ñu wax la nii ngay jaar ñu may la euh, loolu tax na comme euh, euh, consulat bi. bañ na ambassade bi nekk foofu tam bañ na seen mi mujjee ñëw dama mujjee jël note verbale bi Dakar defaroon yónnee ko sëñ Abo yónnee ko directement fii euh, ministère bi fii ñaan leen ko visa ñoom ñoo accepté joxe instruction seen am seen consulat ne leen defar leen ko mais consulat bi day bañ directement directeur général bi ma àndal. balaa muy jóge Dakar laa ko wax ne ko yónnee ma sa photocopie passeport ak sa note verbale ma def la même chose Buenos Aires moo moo pour que ñëpp ñëpp mun egg ñëpp ñu nekk ci même niveau d'information bi xam ne affaire u visa wu passeport du ambassade bi Buenos Aires c'est la réglementation de l'Argentine mooy wax naka lay demee moo joxe ay instruction seen ay consulat ne leen bu leen ko defati wax joxe instruction seen ambassade bu nekk Brasilia ne leen bu leen ko defati loolu tax na man damay ñëw yón fii laay ne man dinañ ma ko defaral ak sama waa agent yi parce que xam nañ ne que on est affecté là-bas on travaille à Brasilia fa la ñuy liggéeyee ñu ngi ci seen li ñu owee livre diplomatique parce que dëkk bu nekk dafa am livre boo xamante ne personnel diplomatique ambassade bu nekk am nañ ko doo ñëw rek ne inventé par exemple ambassade Sénégal laay liggéey te fekk nekk fa parce que dañuy ubbi livre bi ñun ñu fay liggéey amul problème mais keneen suñu euh, euh, kilifa yi ñëw il faut ñu suivre euh, procédure bi soit à partir de Dakar ñu demander Abuja xaar Abuja jox leen nga am temps nga def ko parce que am na fi par exemple ay réunion G20 yu fi am suñu ministre de l' énergie dafa waroon ñëw mais biñ ko ko joxee information bi ak bi mu gisee surcuit bi mu war a def pour demander visa Abuja dellu si dafay gàtt ñëwul ministre tourisme dañ ko dañ ko représenté bërki Dembo Ndiaye parce que à de Dakar laa demande est compliquée léegi li ma leen ñaan mooy ñu signer accord bi ñu am comme par exemple ak Brésil wala ak France ak wax yenn dëkk yi mooy accord boo xamante ne day tax ñaari réew bi ku ci yore passeport officiel booy dem beneen réew bi doo demande euh, demande visa loolu nag du man maa koy signer dama demande bu ma dugal tey la rek pour directeur général bi suivre ko mais entre les deux ministres des affaires normalement sax sama ministère moo ko waroon dugal xëj na bu sottee dina tax bu ëllëgee borom passeport diplomatique bu ñëw ànd ak sa note verbale boo demee directement euh, euh, consulat bi du jar sa nga jaar ambassade bi boo wàccee São Paulo dem si consulat bi fekk signé nañ accord boobu di nga mun am sa visa directement mais en attendant tant que loolu amul ñooñu dañuy poser problème waa Porto Alegre nee nañ ma consulat wu Argentine bi nekk Porto Alegre c'est moins compliqué il paraît que ñoom bon loolu sax aw woon information xaw ma sax ne amoon nañu mais li wóor ba wóor mooy ambassade bi Argentine bu Brasilia ak consulat am Argentine bu san Paulo ñoom duñ ko def san amuñu autorisation bu jógee fii ci seen ministère. Hmm? loolu c'était pour partager ak yéen yenn information yi xam naa ne mu ngi doon circuler ñu foog a nekk ambassade bi mooy bloqué mais pour wax leen ko visa Argentine la moo euh, boytul si yéen ñi am na ñoo xamante ne mos nañ déposer demande visa ke sottiwul. moo tax ñu jaar ci yeneen yoon parce que directeur général xam na ko bi koy wax affaire régularisation euh, dafa ne ma waaw ñun xam nañ ne que ñii ñëw ñëpp en général Brésil la ñuy ñëw ñu ci ñëw ak visa dañ ñun ñu néew lañu donc ma ne leen nag bu fekkee ne que seen politique joxe visa gën ngeen ko yaatal dina décourager ñuy def grand tour bu fekkee ne bu leen wóoree bu ñu ñëwee déposé ngeen jox leen dina ñëw. si loolu la ma waxee rek ne ku am passeport ordinaire boo amee musee am visa Schengen si biir passeport bi wala visa États-Unis si biir passeport bi boo ñëwee ambassade euh, Argentine boo mën a dem déposer dinañ la jox si la ma joxee loolu. li ma bëggoon mujjee si euh, discussion bi ñu am tey ak euh, directeur général bi muy peut-être. Bon point encore bon xëj na dina dellusi si xëj na dina xëj na je vais me retrouver mais loolu daal muy nekk euh, yi ma bëggoon euh, information yi ma bëggoon partager ak yéen xëj na dinañ ci dellusi si di remercier ñëpp si seen euh, intervention tamit may commencer bés bu soxna Daba ko wax ne que dégg nañ bu baax li mu wax euh, dafa amoon benn question bu ma mënoon laajte bu ma bëggoon laajte mi ngi wax waxu bu ñu leen mënee jàppale pour ñu am galerie léegi dama bëggoon xam ndegam euh, ay galerie yu am ba pare la ñu ngeen di xaar ci état bi ñu jàppale leen financièrement walla da ngeen soxla parcelle te bu boobaa dama bëgg xam ndegam fii en Argentine. municipalité bi est-ce que dafa am day joxe parcelle ay ay euh, ñu organisé wu comment ça se passe. waaw madame l'ambassadeur euh, galeria yi ñuy wax ñoom seen bopp argentin ñoom ñoo ko Encanaro koy loué uh-huh. parce que pour yéen ñu ko defaral mënul nekk 2025 sax doo kon lu leer la donc euh, li ma ci xalaat mooy ut galerie galerie benn option rek laa gis après naaw def directeur mu xool mooy ngeen monter projet demander projet demander financement mooy bi ñu doon wax euh, euh, financement femme diaspora monter projet bi ñu jox leen xaalis pour ngeen defee ko fii bu boobaa yéen si li leen jox projet xaalis yéenay commencé am fonds de roulement commencé louer seen bopp. loolu laa gis comme option bu fekkee ne que amul jënd galerie amul jënd parcelle tabax mënul nekk donc muy leneen li mooy naka ngeen di monter projet bi dinaa def après Moustapha modèle projet ni ñu koy monter mais il faut que yéen ngeen monter ko seen bopp bu dee en groupe la wala mu nekk individuel ngeen seet lan ngeen di demander yëpp ngeen dugal ko euh, bu boobaa après dafay envoyé naa waxoon naa ko sax bi ma rencontré femme yi la première fois ba ñëwee ne leen pour madame Samb ñëw fii balaa muy ñëw joxe xaalis day fekk mu jot projet ba pare day dajale projet yépp ñu seet yan la ñuy financé bu fi joxe heure financement jotee moom si lay doog a déplacé wu pour di remettre chèque yi donc mais tant que li ngeen bëgg defu leen ko si papier def demande moom du ñëw donc dama leen di rappelé waat li ma waxoon daaw pour ngeen monter seen projet envoyé ko ambassade Sénégal nit ñu transmettre parce que bu boobaa si laa koy mën a suivre lu koy dépo kayit bu ma déposé sama bopp dinaa ko mën a suivre moom euh, madame Samb euh, beneen bi muy pour euh, habitat tamit dinaa bàyyi après DG dellusiwaat muy deuxième point bi soxna daba waxoon di profité waale si benn question boo xamante ne ñëpp ko posé muy présence diplomatique. ma bëgg leeral dara balaa may dem ci loolu kii wax na que euh, amul euh, pas de relation diplomatique nu mu tudd jaay non non en fait faut pas faire de confusion relation diplomatique existe na li amul mooy ambassade wala bureau consulaire wala consulat général mais euh, Argentine ak Sénégal am nañu relation diplomatique ça fait deux choses am relation diplomatique ak am présence physique ibbi bureau Euh, bu ñu amuloo relation diplomatique seen kayit yi sax du mu nekk wala président Macky du la dara invité président Macky Sall mu ñëw wala fii du fi am ay réunion ñu invité officiellement ñun ñuy déplacé wu man ñëw naa fi ay réunion mais yëpp ay réunion yoo xamante ne si yeneen cadre la donc relation diplomatique am na relation am na ambassade Argentine Sénégal wala ambassade Sénégal Argentine moo ñàkk am donc si loolu la ñu mën a euh, mën a insisté mu nekk loo xamante ne d'accord naa ci yéen il faut mu am présence lii euh, euh, njawriñ bàyyi Fall yi wax sànq ñaanuñu yàlla mu am mu am mais effectivement loolu day wane ne que présence ambassade lu am solo mu ci dëkk yépp nag ci réew yépp yaakaar naa ne yaa ngeen gis ay incident dara di xew benn dëkk wala kenn di daw ñu nag ko sonal mu daw dugg ambassade yu kenn parce que boo fa duggee kenn du la laal parce que ambassade dafa mel ni territoire dëkk bi policier réew mi sax amuñu droit dugg fa donc protection la léegi li ma gis mooy ouverture ambassade dafa diis te procédure bi dafa gudd nomination consul général dafa diis procédure bi dafa gudd enquête la côté Sénégal enquête côté réew bi nga bëgg a demandé mu xool ba pare ba wax waaw ba pare ñu doog a joxe ay kayit donc lu gudd la li gën a gàtt ci sama xalaat mooy bureau consulaire parce que boobu benn agent la defee mel ni ko agent bu ñu affecté ambassade Brésil ñu détaché ko moom mu ñëw nekk fii sur place mu nekk fii tout le temps loolu moo gën a procédure bu gën a gàtt ñu ngi wax naan ambassade la ñu bëgg ñi ne consul général mais dama leen di rappeler nekk que procédure yi dañuy gudd mu nga commencer demande bi ren yàlla xam kañ lay sotti donc lu ñu mun a def encore une fois parce que sànq. kii wax na euh, ma xoolaat turam naa dellu si yeneen question yu mu posé mais di euh, Ndiaga Gueye mu wax lu am importance mooy ñu suivre suñuy engagement ñu fi kàddu buñ fi wax fii engagement ñu suivre ko mu nekk lu am importance ma waxoon boobu kenn laaju ma sax wax engagement mais dama dama première fois bi fi ñëwee dama ne leen yéen a ngi def ay demande am na foo xamante ne man mun naa ko def am na loo xamante ne il faut que ma jox ko samay autorité Dakar du lépp laa mun affaire ouverture ambassade du ci man dañuy def demande bu ñu jógee rek dañuy def suñu rapport ne leen communauté sénégalaise bi nekk Argentine ñu ngi demande présence diplomatique le plus rapidement possible ñoom ñu xool lan moo gën a gaaw bu dee dañu décider ambassade xayrul bu dee consulat général xayrul bu dee bureau consulaire tamit. au moins ñu am quelque chose mais encore une fois lu gën a gàtt mooy bureau consulaire mais du ñu promettre du ma promettre kenn tey ne dinañ ko ubbi parce que du lu des ci man li daan des ci man euh, pour avis am na tamit ku defe naa Abdou Diouf la muy laajte différence consul honoraire ak consul général bu doon consul honoraire par exemple proposition bi ci man lay jóge ci ambassadeur mu defar dossier CV nit ci jox ko ma yónnee yëpp Dakar di leen proposé nekk que diw dafa bëgg a nekk consul général mun na nekk euh, italien mun na nekk argentin mun na nekk français mun na nekk sénégalais amul amul luy wax nekk que bii nationalité war la doon mun na nekk nationalité bu mu nekk mu mun a nekk mais encore une fois consul honoraire du fonctionnaire état Sénégal duñ ko fay salaire moo tax ci critères yi day nekk koo xamante ne liggéeyu boppam la am. mu autonome soxlawul xaalis souvent homme d'affaires lay doon mu am foo xamante ne bu amee réunion wala mu am mission déroulement passeport mun na fa ibbi sénégalais yi ñëw nekk fa bureau parce que boo leen xoolee par exemple mission yi amoon euh, dëkk Brésil yi nga xamante ne dañ fa am consul honoraire foofu la mission passeport yi doon dem muy Rio ci kaw consul honoraire bi lañ dem muy Recife ci kaw consul honoraire bi lañ dem parce que am na bureau muy Curitiba tamit si kër bureau consul honoraire lañ dem donc consul honoraire dafa war a nekk koo xamante ne soxlawul salaire état Sénégal mu ngi yore business am yore na beneen liggéeyam bëgg Sénégal ak bëgg a aider sénégalais yi moo tax moo ko tax a jóg liggéeyu consul euh, protection ak santé fi nekk beneen bi muy liggéeyu économique mooy jéem a raxatal rataxal diggante yi bu amee ay hommes d'affaires yu bëgg a dem Sénégal pour créer business nga jéem leen jàppale donc loolu yëpp ngi ci. donc euh, encore une fois may leeral loolu pour Abdou Diouf consul honoraire proposition mun na jaar la jaaree ci Séné euh, ambassadeur bi parce que lu oyof la même bu fekkee ne que ça prend du temps parce que day am tamit mais consul général moom président de la république mooy décider choix euh, élire kenn génn décret defaral ko wala mu nekk consul mun na nekk consulat simple tam souvent dañuy wax consulat général rek mais mun na nekk consulat simple consul moo fay nekk. consulat général consul général moo fay nekk consulat honoraire consul honoraire moo fay nekk yeneen ñaari donc comme ni ma ko waxee du dépendre ci ambassadeur bi dafay euh, proposition lay def pour consul honoraire léegi euh, ma bëgg a delluwaat ci kàddu Alioune Badara di wax ne que dinaa bàyyi euh, dinañ ko bind suñu rapport demande bi ngeen demandé pour assistance pour kër Kër Sëriñ Touba bi ngeen taxawal déjà bi ngeen am parcelle. seet nu leen ci jàppale après xam naa DG dina ci dellusiwaat euh, sëñ Pape de def naa dem na waaye maa ngi fàttaliku bu baax bi ma échange ak moom bi ma fi mujjee ñëw euh, mu doon lu am solo ñuy rafetlu bu baax gidd bi muy guidee sénégalais yi ñuy gën a jeune ñuy doog a ñëw may wax ne tamit ñu tam dañuy rafetlu nekkin bi fii mi ngi naan euh, exemple lañ fii effectivement à part affaire ambulance bi def naa ne loolu rek moo ciy ñagas mais tey bi ñu demee ministère affaires étrangères nee nañ ñu doo dégg sénégalais ci fait divers ci journal ñu ne am na lu toj toj lu xew benn sénégalais moo fi nekk nee nañ loolu amul fi ñu nekk lu koy rafet lu te fi may wax yéen nii amul benn détenu kenn benn prisonnier sénégalais ci benn prison fii mu nekk tam leneen lu ñu rafetlu parce que c'est pas la même chose partout dans le monde. léegi mi ngi wax waxu demande de financement bi encore une fois euh, def naa ne DG expliqué na sànq euh, yan type de financement moo am mais encore une fois il faut ngeen monter dossier bi ñu transmettre ko ba pare pour mu doog a mun a am suite moom moo njëkk a wax waxu renouvellement passeport am na ñeneen ñu ciy waxoon mais ma profité répondre benn yoon euh, bi may doog a ñëw dama li ma njëkkoon demandé mooy ñu yónnee ñu. Euh, kenn ku jóge ci consulat général bi nekk euh, New York parce que ñoom dañu am centre de production de passeport kenn dafa nekk sur place tous les jours pour defar lu dul passeport ma defoon demande bi pour ñu yónnee ñu ko moom mu ñëw mujjul sotti intérieur préféré yónnee ay agent wam ñu ñëw defarlu ko fi mu nekk nii ñu ngi négocier woon maax DG ak consul euh, général New York te rek jox ko nañu pour ñu yónneewaat bii pa au lieu que mu jógee Dakar comme dafa diis waa ministère de l'intérieur ne ñu jógee ko New York rek mu ñëw ñu wax ci premier rencontre xam naa suivre nañ suivre ngeen ko San Paulo ñu dégg ci ñu dem euh, Porto Alegre waxaat ko waaye mu am si waa Porto Alegre daan ne mission bi c'était mal organisée loolu démb la ko wax ñu ne la mission était mal organisée bu doon seen sago ñu avertir leen à l'avance ñu xam ni ñu defee nangam nangam nangam. moo oowaat cons bi ñu paree réunion moo oowaat consul général bi ne ko mission bi nañ ko bloqué mais balaa ma koy wax ne mission bi nañ ko bloqué nee naa waa si jotaay bi waa sant euh, waa Porto Alegre ne ko mission bi dinañ ko ba ñu organiser parce que lan laay bañ mooy mission bi ñëw ba dem après ñu commencé waat mission bi ñëw bi jaru ko woon parce que loolu la wax ne am na mission bi fi ñëwoon boo xamante ne ñàkk ñëw sax moo gënoon parce que yàq nañ seen xaalis am na ñoo xamante ne ñu seen passeport perte nañ temps am na ñu perte liggéey pour rien du tout looy laay bañaat nag. donc moo tax ma ne fi nekk ni mission bi waroon ñëw tey tey moo doon date bi mu war a ñëw mission bi waroon ñëw à partir de Brasilia mission bi waroon ñëw nañ ko bloqué def nañu demande à tous les présidents des associations pour ñu defal ñu liste ñi nga xam ne dañu soxla passeport sur la base de la liste ñu seet naka la ñuy def mission bi naka lay déplacé woon mais mu am benn problème boo xamante ne Ndiaga Gueye euh, posé waat na ko sànq muy est ñoom yéen sénégalais yi yéen a war a cotiser pour mission bi bu ñëwee nga xamante ne état Sénégal moo ko yónni mu ñëw fekk si leen normalement non la réponse est non normalement ministère de l'intérieur bu ñu ko demandé yónnee leen mission passeport ne leen passe bu ñëwee day dem fii ak fii ak fii ñoom ñoo war a jënd billet pour que agent bu ñëwee à partir de Brasilia mu mun a dem feneen mais li ñu def mooy li ñu naan la mettre la devant le fait accompli yónnee leen ak benn ordre de mission bu ne boo xam ne ak billet avion boo xamante ne Dakar Brasilia Dakar jeex na fii sax du ci bokk Dakar Brasilia Dakar ma xam ne nag mënuma bàyyi mission ñëw ba fii te du defar ñu Sénégalais yi fi nekk yépp mais comme la première fois première mission bi 15 jours bi bi ma waxee ma laajee Sénégalais yi ki ma fa nekkaloon Diagne xam naa xam ngeen ko mu ne ma mission mos na fi ñëw mais Sénégalais yi seen bopp ñooy si ma ne kon xayruñ ñu waxu cotisation waa Rio de Janeiro ne ñoom duñu cotiser tey duñu cotiser suba ma ne am nañ ci droit bu leen neexee bu leen cotiser mais li ma leen mën a wax man en tànk que ambassadeur mooy mission bi seen kilifa waa intérieur bi ñu leen di yónni dem leen Brasilia leen leen wax fa la ambassade bi nekk léegi ma lay wax na ne ku buggul cotiser am nga ci droit mais yaay jógal sa bopp ñëw fekk si mission bi Brasilia loolu la parce que du man maay jënd du ambassade bi mooy jënd billet ambassade bi amul jël mënul jël en charge keneen ku bokkul si personnelu ambassade bi bu Sénégal yónnee mission muy ministère affaires étrangères wul ministère de l'intérieur wuy beneen ministère agent boo xamante ne bu ñëwee dafa war a dugg si yeneen gox goxaat ministère boobu ko yëkkati agent moo war a jënd billet yi pour déplacement am à l'intérieur du pays parce que Brasilia dafay rëy yenn saa yi dinañ toog fële du ñu xam ne que dëkk bi dafa rëy déplacement yi billet d'avion la amul jël oto dem dellu soit li taxoon mooy li Moustapha wax sànq li taxoon ngeen di cotiser parce que dañ leen wax ne que mission baa ngi fi waaye policier bi mënul jóg dem fenn ambassade bi mënul couvrir déplacement am man tamit mënuma mënuma yëkkati benn dërëm génn ko pour benn agent boo xamante ne nekkul si sama personnel si lañ may yenn président di ma wax naan bàyyil au lieu que ñun ñu jóg ku ci nekk paas dem Brasilia ñun ñu cotiser jëndal agent bi mais agent bu policier bi rek la ñu jëndal man maay jël en charge agent ambassade bi accompagné parce que du ma bàyyi mukk policier ñëw moom kenn parce que policier warul laal xaalis quittance bi ñuy fayee vingt mille francs yi su suñu agent comptable bi nekk ambassade moo koy joxe donc may agent bi ànd ak moom man maa koy jël en charge parce que am naa ci droit loi bi may na ma ko mais policier bi soit ki ko yónnee moo koy yëkkati fayal ko wala mu bañ ko fayal mu yam brasilia yéen ku ci nekk ku ci soxla ñëw fekk si ko brasilia noonu léegi kii war a ñëw fi mu nekk nii xamaguma naka lay demee maa ngi discuter consul général bi nee na wóoru ko ndax dina am moyen di ko fayal fu nekk bu boobaa en tout cas biir euh, Brésil xëj na ñaari ñaari gox rek la ut am euh, Brasilia ak feneen ñeneen ñi déplacé wu si feneen fi euh, diminuer dépense mais fii wax laa na wax naa leen déjà consul bi Argentine il faut ñu jëndal ko billet moo tax ma ne nañu mieux vaut ñu euh, euh, euh, reporter mission bi ba ñu am le maximum li ñu mën a am ñu doog ko def dañu bëgg mission bi chaque 6 mois au moins mu mën a déplacer parce que ku jóge New York ñëw fii mooy gën a yomb mais fi mu nekk nii maa ngi négocier ak consul général bi pour que paasu agent bi bi mission pour ngeen bañ a cotiser dara. bu yàlla defee mu sotti moom ñoom mission bi euh, consulat bi moo koy fayal biyem mu jógee Brasilia ñëw fii defar leen seen euh, seen passeport delluwaat doo leen ko amee lekk doo leen ko amee naan parce que dañ koy fay loolu moom waxaatoon naa ko euh, Moustapha parce que defaloon na ma rendu mission wu carte d'identité yi cotisation yi ngeen def ak cotisation yi pour lan la woon mën na ko def ngeen erreur parce warula leen leen jox ñu lekk waru leen jox ñu naan côté boobu moom état bi jël na ko en charge ba pare ay fonctionnaires yu déplacé lañu benn problème moo doon am mooy déplacement diggante Brasilia ak yeneen gox goxaat yi rek lañ dul woon jël en charge mais kenn santu leen ngeen jox ñu lekk kenn santu leen ngeen utal leen hôtel ñoo war a jël seen bopp fu hôtel fu ñu fanaan kenn santu leen ngeen jox leen naan euh, ñaanuma ko kenn bañ teem problème am moo tax ma ne micro bi c'est parti bañ problème am moo tax ma ne nañu xaar ñu xool nu ñu organiser mais incha allah dina ñëw dina ñëw euh, dina ñëw euh, euh, Argentine mais yaakaar naa ne benn endroit la du ma di kenn ne dina dem fii dem Mendoza nangam nangam def naa lu ñu am maximum bi mooy mu yem Buenos Aires incha allah. ah la platage moom kon bu boobaa di ngeen li ngeen li ngeen di bañ dina am de kon kon bu boobaa li ngeen li ngeen di bañ dina am mooy cotiser bi hmm. soriwul kon mun na jël oto ah mun na jël bis dem ah d'accord. <laughs> ak matériel la waaw hmm. kon kay nga dem bus fekk si ko moo gën. xamuñu ñaata jour la nag pour le moment parce que. Euh, dama yaakaar ne dinañ xaar peut-être après tabaski. ah ah bon <laughs> d'accord donc euh, beneen euh, point bi wax naa yëpp waa Abdou Aziz seen ñu ngi nuyu bu baax solidarité sénégalais yi loolu lañ leen xamee en fait suñu ay mbokk ambassadeurs yeneen dëkk daf ñuy daf leen di jaaxal chaque fois lu tax sénégalais yi naka la ñuy def ba am contact ak sénégalais yi parce que ñoom nee nañu seeni i doomu réew bu ñu demee extérieur bu ñu xësee ba takk fa jabar kenn dootu leen dégg amatuñu rapport ñu ne leen ñun nag sénégalais yi ku ci nekk am nga yaay wala papa wala sœur wala am nga parent boo xamante ne tax na sa rapport ak Sénégal ku ko ñun c'est rare dina am nag par benn benn sénégalais yoo xam ne dañu dem bitim réew couper le bon pont ak seen famille mais en général euh, mu nekk loo xamante ne lu rare la mais wax rek tamit euh, di fàttali Sénégal dëkk bu tuuti la. dëkk bu si pays les moins avancés la bokk bokk su nekkagul si pays développé te ngeen war a ne tamit effort yi ñuy def parce que li ngeen di am góoma négam moo nekk question bu may posé est-ce que mos ngeen gis beneen ambassadeur beneen dëkk mos a organiser réunion ak communauté am fii wala feneen foo leen mos a nekk. waaw donc ñun wax dëgg yàlla xëy na li ñu def matul. mais ñu reconnaître na ñu ngi def benn effort parce que gis nañ ne sénégalais yi dañu garder contact ak seen pays dañuy ambassade bu yeneen dëkk yi dañu ñëw ñu laaj naka ngeen di def pour organiser élection ci biti naka ngeen di def pour euh, assister leen pour xam fan la ñuy nekk ñu ne ñu ñuy jóg dem fekk ji leen duñu sax xaar parce que dëkk bu nekk doomu dëkk bu nekk bu sa passeport jeexee sa ambassade bu ngay jóg ñi am seen ambassade am renouvellement passeport sa ambassade ba ngay dem ñu defaraloo ko dem mission passeport nii buy wër nii di dem fekk ci Sénégal dem bitim réew def naa ne mosu leen ko dégg fenn parce am naa ay euh, collègue ambassadeur yu nekk euh, euh, brésilien du ñu jóg dem fekk ji du ñu defar mission passeport du ñu def ji immatriculation ku bëgg a këyit seen réew yaay dem ci ambassade ba def ko parce que normalement ku ci ku ci soxla passeport sax démarche da war a démarche sa réew mais comprendre nañ ne que parfois c'est compliqué donc ñuy wax ne état Sénégal li muy def ñu bëri defuñu ko ñu ngi def effort mëtul nag d'accord nañ ne que mëtul mais dañuy góorgóorlu rek di seet ñu koy améliorer de jour en jour euh, ñu noté bu baax euh, Abdou Aziz lu mu wax ci affaire Zawiya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif bi euh, DG dina ko jottali incha allah. pour euh, assistance su construction zoe bi ma dem ci Serigne Bamba Dione muy def suggestion defe naa wax na affaire bureau consulaire ba pare euh, légalisation yi nag problème casier judiciaire wax naa ko passeport yi normalement normalement ku demoon Sénégal bureau des passeports bu sa passeport jeexul duñ la renouveler. mais dañu jox koo deuxième mission bi ñëw dañu ñaanoon waa ministère de l' intérieur même ku passeport am des 10 mois deuxième mission bi am na ñoo xam ne seen passeport desoon na 10 mois mais dañu leen renouveler dañu leen dañu leen enregistré donc ba 10 mois mun nañ jël jël koo xamante ne passeport am jeexul parce que xam nañ ne ko mission bi du ñëw régulièrement et diggante bi ñu euh, euh, y a le problème de l' embarquement à dañu laajte ku am au moins 6 mois de validité balaa ngay yëg avion. beneen bi mooy passeport bi du ñëw si saa si yenn saa yi mën na def deux fois deux mois balaa muy dellu donc négocier woon nañu ba dix mois ku am passeport ku ku sa passeport xamante ne dans dix mois lay jeex ñu jël la quand donc euh, bu boobaa dañ lay bàyyi sa passeport mais au moment ñu lay jox passeport bu bees bi da ngay delloo passeport ancien passeport ñu def ci mu def ci cachet annulé ñu jox la bu bees bi euh, beneen bi. visa guide religieux yi def naa wax naa euh, expliqué naa affaire visa yi def naa leer na lépp si bopp yi léegi fan lañ ci toll fan la lan mooy décision yu Argentine ñun lan lañ ci mun ax yéen jéego lañ ci teg pour gën ko taxal parce que du ñoom rek ñun tamit passeport yooyu la ñu yore te dañu am problème bu ñuy dugg si Argentine donc mu nekk loo xamante ne dinañ ko suivre incha allah euh, Serigne Assane. def naa tontu naa benn bi ci affaire présence su mission diplomatique mu nekk lu am importance beneen bi muy affaire génn leen ci ci mbedd bi ci commerce de la rue bi mais dafa mel ni yéen nanguwu leen walla amu leen moyen yoo leen di dem louer ji galerie pour dem fay ji. am uh-huh. ñoo ëpp. galerie yaay dañu cher. waaw loolu moom benn solution rek laa ci gis mooy demander financement tamit soit ngeen def ko benn bu global mu bañ a nekk ay demandes individuelles. j'ai une pour ça. donc maa ngi bàyyi après DG dellu si affaire boobu ok euh, Aliou Dieng waaw ñu ngi koy remercier bu baax si kaddu yi euh, def naa DG noté na li nga wax pour président Macky Sall moom dina ko jottali incha allah. Abdou Diouf tontu naa si tontom ba pare Ndiaga Guèye def naa tontu naa ci benn wax wax naa affaire prise en charge mission passeport lan moo doon waral ngeen di cotiser euh, am na benn question bu mu laaj mu nekk lu ma jaaxal mu ne dañuy acte de nessance yi dañ leen doon laaj mu légaliser ko loolu jaaxal na ma parce que acte de nessance ñi nekk extérieur duñu leen laaj sax durée de validité bu doon Sénégal booy déposer dara dañ naan la 3 mois ñan euh, Sénégal mooy demandé. waaw. Mhm. loolu la ñuy wax. loolu moom loolu duñ ci mën a sori ndax ça dépend de l'agent policier. Ah. maanaam loolu administration. dafa fekk kuy am première fois passeport wala non même pas. ah carte d'identité. DAF waaw DAF la woon de l'intérieur. ah dañuy exiger lan acte de naissance. non non ah parce que loolu lu ma jaaxal la parce que man sama bopp si kaa seen kaa laa bokkoon man sama sama carte d'identité laa defee man sama bopp sama carte d'identité rek laa defee loolu jaaxal na ma carte d'identité nga defee non carte d'identité la ñuy defee parce que carte d'identité mooy am yenn information yoo xam ne passeport amu ko ancien passeport mun naa comprendre ñuy demander la acte de naissance waaw. ah ñii di laaj lii ñeneen ñi duñu laaj. Hmm. mais mais yooyu bu amatee da ngeen koy saisir. rapidement parce que ñi doon affaire demandé dix mois yi man maa ko négocier directement ak chef am parce que moom bi muy ñëw dañ leen wax ne lii la. boo waxee président rek mu woo ko. mais. Euh, euh, euh, loolu kay yomb na. <laughs> wala nga wala nga woo ko ci fixe bi. waaw. Ah. Ah, waaw man de ci fixe balaa daan ah, mais dinaa leeral loolu parce que normalement man mii di wax ak yow sama carte d'identité moom laa defaree moom lañ ma defaraatee carte rek lañ ma demandé donc dinaa xool loolu comment ça se ak agent yi fi nekkoon yi ñëwoon Brésil euh, Argentine beneen bi nee na ambassade waxuñu leneen lu dul ambassade bon dinañ passer message bi euh, prise en charge des décès des décédés encore une fois caisse bi ñuy am crédit yi ñu tudd aide et secours si la ñuy aider ñi am problème ñi bëgg ñibbi te amuñu paas ak ñi xamante ne yàlla dafa jël seen bakkan su ñoon leen aide mais waxoon naa ko fi mooy ñëw première fois xaw ma ni nga ci réunion bi parce que posé woon nañ ma ko ma ne leen benn condition rek laay laajte ñu saisir ma par écrit parce que man tamit dama war a di justifier dërëm bu ma génn fan la jaar boo leen ma bindee boo président ngeen président bind ma daan ne dañu soxla assistance pour tel ku génn àdduna man këyit boobu laay jël jox defar décision daane nañ ko jox temps ñaari këyit yi dafay dem comptabilité agent comptable si lay basé wu pour mun a defar chèque ma signé mu doog ñëw tant que awma demande bu écrite bi duma mun a def dara mais bi ma fi ñëwee daaw si laa ko annoncé te boobu ba léegi ma ñëwee ba léegi maa koy def def naa jeex na li des mooy suivi de nos engagements incha allah man de du ma fi maax moom yëpp ci yem duñ fi wax dara loo xamante ne du ñu joxe date du ñu joxe waxtu dinañ ko def lu ñu mën a def loo xamante ne ñun suñu liggéey mooy directement mën nañ ko def dinañ ko def loo xamante ne dañ koy. yeggale autorité bi dañ koy yeggale autorité bi di ñaan mu daal di ko di suivre pour mu daal di ko mu doo ko mën a mettre en œuvre incha allah euh, Cheikh Thiam waaw benn bi def naa répondre naa ci mu ouverture ambassade euh, mu wax waxu document document pour ouvrir yan document la ñu wax ne mooy am problème pour euh, logement wala pour euh, euh, am galerie ban document mi nga wax document. document situation irrégularité bi la. waaw situation irrégularité bi nag mu nekk benn lu difficile la. suñ kër Serigne Touba bi incha allah beneen bi muy affaire nationalité des enfants nés de parents yoo xamante ne dañu irrégulier waaw léegi bu fekkee ne nag nag dëkk bi moo wax ne ku irrégulier sa doom duñ ko mën a def def kayit. def naa ambassade bi mënu ci dara de législation dëkk bi la waaw bu dee problème législation yi bu dee li ma mun daal mooy encourager leen ku fi sa doom juddoo nga wut kayitu sénégalais au moins parce que on sait jamais bu ëllëgee xale yi mun na dellu Sénégal bëgg nekk ministre wala nangam nangam ñu ne ko amuloo nationalité ndekete donc def leen effort pour que seen doom yi en attendant que ñu seet euh, ngeen am këyit régulièrement gouvernement argentin bi ak accepté ngeen na seen doom yi am nationalité euh, jéem leen utal seen i doom euh, nationalité sénégalaise parce que def naa ne saa yu leen yónnee seen carte d'identité ak acte de naissance xale bi du tardé lan moo fasilu waaw waruloo dem ba Sénégal di utal sa doom bu fekkee ne sa doom fii la juddoo këyit bi fi nga koy demandé si ambassade bi couvrir sa fi nga nekk parce que boo demee ba Sénégal demandé ministère affaires dañuy bind benn lettre delloo ma ko man daane ma enregistré xale bi ba pare si say registre jox ko numéro delloo leen ko ñu doo ko defaral këyit képp ku juddoo xale bu juddoo extérieur sa premier état civil mooy ambassade wala consulat fa juddoo mhm. ñun ñooy defar documents yi def ko si benn registre chaque fin d'année ñu jël registre yi delloo ko affaire étrangère nga jox la benn copie mooy euh, bu tudd extrait d'acte transcrit yow këyit boobu boo demee euh, ministère affaires étrangères chancellerie ne leen sama doom juddoo euh, woon Argentine tele année kayit bii la ma jàmbasaat joxoon ñu xool këyit bi gis année bi dem génn si seen classement archive registre bi gis ni ko xale baa ngi fa original moo tax ñuy laajte original baa fa defal la ci saa si benn doomu sénégalais bu juddoo bitim réew kenn du ko déclaré affaire étrangère ñi xamul ba dem foofu dañu mujjee na leen xaar leen dañuy bindaat beneen message jox ma photocopie document yi ne ma def enregistré ko ba pare jox ko numéro parce que warul am numéro Sénégal numéro bi dëkk bi mu juddoo la am parce que numéro bi dañ ciy reprendre original acte de naissance ko defaree fii Argentine donc ku fi juddoo il suffit que nga yónnee. original acte de naissance. moom lañ ma laajoon. copie sa carte d'identité ñaari parents yi. sama doom bi ñu defal la si saa si. bu docu dossier di dellu siwaat euh, mm-hmm. bi yónnee naa man sama bos sama doom bi njëkk a judd fii mm-hmm. yónnee naa extrait de mm-hmm. euh, moo fa nekk xale am na quatre ans boobaa léegi am na quatre ans mais ba léegi xaw gisuma benn kii daal joxuñu la document normalement war la jox document bu am benn numéro numéro dama dama yón dañ dama yónnee sax laa ko jox daf ko yónnee foofu mais ba léegi joxuñu ma benn document bu xale bi am moo tax ki mujjee judd sax mujj ma defaat loolu non léegi boo ñu joxee année bi kañ nga yónnee woon xale bi na la tudd. ñun registre yëpp dañ koy def en double. benn bi original bi ñu yónnee euh, Sénégal chaque décembre. mais deuxième bi ñu ngi am ñun. même boo fa nekkul archive archiviant ko mën nañ ko génne. document baa nga fa document baa nga kon xam am amina 2014 la 2014 waaw. non non 2014 soriwul archive yaa ngi fi donc boo ñu joxee année bi ak turam turu papaam turum yaayam. dinañ la yaayam parce que xam bu fekkee dañu fi jublu te sa papa teewul. sa turu yaay rek rek moom lañ ci déclaré amul problème mën nañ la defaral euh, extrait incha allah waaw léegi euh, Serigne Gueye Euh, question yi mu laaj affaire projet yi dinaa ko bàyyi ak DG euh, mu wax en xale yi war a dellu ñi ñi bëgg a dellu pour réinsertion orientation bi am na bureau bu existé boo xamante ne loolu rek mooy liggéeyam euh, DG dina ci dellu si waat Diagne mu wax problème document def naa dellu nañ ci wax naa affaire relation diplomatique yi naka la demee def naa ne bu ma juumul tontu naa ci question yëpp maa ngi bàyyi ak DG mu eggali. ah <laughs> waaw soxna Soda kon danga may bàyyi bu may dem ma yóbbaale ko ñu defar ko ñu envoyé la ko par courrier def def na la 15 jours. bii tamit dëkk am naa xool ba xam mën na nekk merci merci beaucoup madame l'ambassadeur je crois que.